الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه وأسنى خديمه ذوي الرضوان والتمكين bokki jullit yi bokki taalibe yi ñu ngi am mbégte bu baax a baax di leen nuyu yéen ñëpp leen ziyaara di leen ndokkeel bu baax a baax ci weer wi nga xam ne mooy weeru gàmm wi ñu nekk di jiital ci ndokkeel gi ak ziyaar bi nag ki nga xam ne moo di kilifa gu baax gu tedd gi ni ci kanamu njabootu sëriñ bi di a cheikh Mouhamadul Mountakha ibn cheikh Mouhamadul Bachir di ko ñaanal suñu borom yàggal ko fi lool te dolli wéram ak ki tawfiqam ak bàyyi ko xelam ak sagom te dëpp ko kattan itam ba li mu yéene liggéeyal sëriñ bi lépp mu liggéey ko ci sagom ñu ngi koy ndokkeel moom bu baax mu cheikh Mouhamadul Mountakha ci weeru gàmmo wi waaye di ko ndokkeel itam ci bisu gàmmo bi di jaare ci moom itam di ndokkeel mboolem kilifa diine yëpp rek. ne ci réew mi di ndokkeel al alamul islami ndax gàmmo ñëpp ko bokk sëñ bi da ciy am wàll lool waaye ñëpp ko bokk ñu ngi ciy ndokkeel ñëpp sëñ Mor xam naa ni nga ko waxe eh, waxtaan ci diggante sëriñ bu mag bi ak gàmmo mooy waxtaan ci diggante sëriñ bu mag bi ak rasulullahi sallallahu alayhi ndax sëriñ bi ni ngeen ko xamee rek ci bëgg gi mu bëgg yàlla eh, bëgg bëggal gu kawe ci la bëgg rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ci bëgg bëgg rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ci la bëggale lépp lo xamne lu aju ci yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam ci la bëgg alquran ci la bëgg sunnaam ci la bëgg ay sahaba ci la bëgg aw xeetam mom daal lépp lo xamne dañ koy tuddu di tudd rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam serigne touba bëgg na la ngir bëgg gi bëgg yàlla waye ngir bëgg gi bëgg rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ci biir loolu nak ci la bëggale gàmmo jëmmi weer wi ci boppam da koo sopp lool fonk ko lool rawatina nag bis bi nga xam ne mooy bis bi nga bi sallallahu alayhi wasallam bis boo xam ne bu dul dara sax feeñ gi ci xéewal gu mag googu feeñ ak yërmaane ju jooju nga xam ne bi mu ñëwee jamono rek la eh, lépp luy caaxaan màbb dëgg jóg gën a jóg jëm ci kaw leer jolli ak ak réer daal di suufe ba faw pour lu woon dara itam rek loolu jar na su bis bi ñëwee ah ñu di ko fonk di ko màggal waaye sëriñ bi moom da cee amoon jagleeg boppam moo tax mu daan yittewoo lool weeru gàmmu ni nga xamee ne da ci da ciy wone ak bëggam rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam <coughs> loolu mënees na koo tàmbalee ci ni mu ko daan teeroo ni daan teeroo weer wi xam ne su weer wi masaana teru sax da daan def ki ko njëkk a yëgal euh, ne ko weeru gàmmu teru na kooku moom da koy neexal suñ mag bi da koy neexal moom da ko neexal neexal bu am solo ba nga xam ne dañ koy njëkkante sax su weer su su weer wi feeñee ngir gaaw xamal ko ndax xam nañ la nga xam ne moo leen ca ci ci leen ca mën a amee ci ci ci ay ci ay xéewal yoo xam ne day bàyyi ko ci moom te lépp xol bu sedd lay àndal naka noonu it daawul yam rek sax ci ci ci ki ko ki njëkk a wax maanaam ne ko weer wi teru na waaye ci diiru weer wi yëpp mbooleem ku ñëw seet si ko siyaare si ko dana la sotti ay xéewal sotti la ay may ba am na sax bari ki taalibe yi dañ daan nekk ba wéru gàmmu teru ñu ñëw gaaral ko seeni soxla ngir xam nañu soxla suñ ko gaaral ci wéru gàmmu moom dana ko faj insha allahu taala loolu moo tax daawul delloo benn benn benn benn benn aajo benn soxla rawatina nag ci wéru gàmmu wi nga xam ne nag moom mooy weeru soppeem bi sallallahu alayhi wa sallam moo tax bu su weeri masaan teru da ko daan taalifal ay xasaayit yoo xam ne da cay yi teeru weer wi di ko tatagal boo demee ki diwaanu mawlud diwaan bi nga xam ne diwaan mawlud yi la xasida yi ko ubbi rek dañ ci fekk bay yuy firndeel loolu ñi nga xam ne su weeru kon ma day taalif yaa xeera dayif yu mel noonu ak yu xeetoog moom su weeru gàmmu ma itam noonu lay taalifi xasida yoo xam ne da ciy tarxiib da ciy tatagal weeru gàmmu di wax raxabtu taadiman bi chahri l muntaqa alayhi taslima muni lil irtiqa maa ngi yaatal marhaban di teru ak dalal jam ngir magal kan wéru muntaqa wa sallallahu alayhi wa sallam jàkkaarloogu wéru wi di wax ne ko yow kat ken munu la ñak teru ken munu la ñak teral ndax da nga da nga bégal kep ku ragal yalla kep ko xam borom ko ragal yalla rek bo feñé rek dang koy bégal ndax day xamni wéru bi yalla bi de nga teruna wéru xéewal teruna te yow it yaay ndamal leer yaay manam yaay ndabal ndabal leer yaay ndabal tan ak set ndax ki ki ki ki leeral jamono ak yàlla tànn ci biir mbindeef yi yëpp mu gënal ko ñëpp ci ci ci ci ci ci maanaam ci yow weer wi ci la feeña jamono war naa ko bacharta yaa rabiu kulla zi tuqaa yaa darfa nuurin wastifain wa intiqa dem na banaan ko sax nag ni nga mel mënoon a ñàkk mel faaw ñu di la teeroo ka teral ndax dañ ñoo baaxee andil ñu ki nga xam ne ci li weesu mësuñoo xam ku mel ne moom maanaam yàlla mësta sàkk ku mel ne moom te lii ñëw itam xamuñu ku mel ne moom yaa man xabaana billadi lam yuxlaqa nadiruhu wa abadan lan yuxlaqa kon gis nga ni nga xam ne noonu la noonu la daan teerooy weer yi di ko wax nag kon nag laka laka aqulu marhaban lil muntaqa yaa man xaba bihi wa alayta tartiqa kon maa ngi lay wax ne la daral jàmm yow weeru gàmmo te daral jàmm gi ma lay daral jàmm kat dama koy def ngir soppe bi nga xam ne moom la yàlla tànn muy muntaqa di sallallahu alayhi wa sallam yow mi nga xam ne yaa ñu ko baaxee te kaweel ko te kaweel ko ak kawe gu yëkkati ko daana weesu sax di ko dalal ak di ko teeroo ko tatagal daana àgg ci di sant yàlla ci weeru gàmm su su su su su weeru gàmm masaan teeroo di sant rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ci loolu alayka ahmadu allazi qad atlaqa kulli li wajhihi wa lastu mumliqa maa ngi sant yàlla ci weeru gàmmo yàlla moom nga xam ne sama lépp moo ko boyal jëme ko ci jëmam ja te doonuma koo xam ne kuy aajowoo lenn wala kuy soxlaal kenn wala kuy dem di yittewoo mbirum kenn ndax li ma soxla lépp yàlla jox na ma ko kon noonu la ko daan teeroo ci ni ni ma ko waxee daan daan daan ko daan ko tatagal waaye daan bégalit jullit ñi daan bégal taalibe yi daan faj aajo yi mm, képp koo xam ne gaaral nga ko aajo ci biir weer wi tàmbali nag di di ko dundal nag kon loolu mooy kon eh, xay na ñaareelu tomb bi mooy ni mu ko daan taxawee ak ni mu ko daan dundalee waxuma bisu gàmm waaye sëriñ bi moom weeru gàmmu wi yëpp la daan dundal loolu da ko wax waxit li tax mu di ko dundal daani ila ixyaai da shahri kawnuhu li xayril wara darfan xawaa kulla suudadi nee na li tax may dundal weeru gàmmo weer wi yëpp da shahri la waxut maanaam dal yow mi wala dégg nga yowmal mawlid dafa dafa ne da shahri daani ila daani ila ixyaai da shahri li tax may dundal weer wi weer wii muy weeru gàmmo mooy ne weer wi dafa doon ndab ndab ظرف نب لا لو خامني دا فا امبو ليب لوي اك تيانغ كل سودت ليب لوي اك كاوي رك ليب لوي اك تيانغ رك بو فيتي كاوي رك تي صلى الله عليه وسلم مومكو ا آه، ويرو غامو دكو امبو لي خير الوران امبل كو نيل نين جي بنديف ني لولو موتاخ مي دوندال ويرو ييب ا آه، دانا صاح وني ني ويرو غامو سوما سانه تيرو لي نيرو تاوات تي موم ak luy niru tayel ci mom señ bi ko na xamne mom mësta tayel ci borom mësta tayel ci yonent bi waye ci waxin wi day tudd baatub kasal di tudd baatub marab tawat da xëy ñàkku ne daana ko gar waye ak njambaram ak muñum daana tax ba ken daaw ko xam ci mom waye neena nak su yoru gàmmu ma santeru mom neena sama tawat ak samay sama sama taayil ak yeb wer bi da koy dindi ya khayra shahrin jaabi khayri mursali adhabta qatan maradi wa kasali yow yaa yow yow ngeen ji weer wow andil nga ñu ngeen ji mbindee fa la ngeen ji kuñ yónni yow day dàqal nga ma sama tayel dàqal nga ma sama tawat ci lu wér waaye dàqal nga ma itam sama tayel wax na ko ay yoon yaa xayra shahrin jaa bi xayri mursali mubashiran maxawta nii kasali da ngaa ñëw di ma bëggal waaye da ngaa far itam sama sa sama tayel yow moo ci far tayel gi mais dañ cee boole sax far njàqaare li far dégg nga luy niru ngëlëmte ma doon ku mucc ci kersa ak gàccik àddina ak alaxira anni maxawta kasali wa wajali wa xayrati daa asmatin min xajali gis nga kon day mel ne ku jàkkaarloog jëmm weer wi lay waxal de jàkkaarloog jëmm ku jàkkaarloog jëmm te sëñ Moussa Ka waxoon na ko ca ca ca ca géej ga wax ne bis yeeg weer yeeg yëpp dañuy soppaliku ay jëmm di xaraa daati di ko dikkal sëñ Basiru ni mu ko waxee ci bi muy wax ci digganteem ak weeru koor nee na eh, sëriñ bi weeru koor ak weeru gàmmoog yëpp dañ daan doon ay jëmm taxaw ci kanamam di ko seedeel ab liggéeyam ci kanamu boromam moo tax buy wax ak ñoom day mel ni kuy wax ak jëmm ju am ruux am yaram am lépp mbégte moomu weer wi yëpp yépp yëpp yëpp la ko daan am day wax sax ne sama texe sax maanaam xol bu neex bu may am ak bànneex bu may yëg li koy gën a fësal ba ñëpp di ko gis mooy weeru gàmm <laughs> saadati adharaha rabion al awalu alladi huwa rabion huwa rabion jooju mu jox nag day war a it ne ni gàmm ni weeru gàmm toll woon ci moom nga xam ne nee na lii ngeen di wax ab lolli nga xam ne su ñëwee dégg nga nawet bi day pour fekkee nag bi daa baax xéwal yi am euh, maanaam dégg nga dugub ji ñor Euh, dégg nga ni mu am nit ñëpp yëg yëg naataange ñëpp yëg euh, euh, xéewal nee na man sama lolli mooy chehru rabion al awal huwa rabion nee mooy dëgg dëgg lolli ci man ne ko nag yow weer wi danga ma maa surtout nag sax guddi gi nga xam ne ki la sallallahu alayhi feeñ jamono moom nee na yow moom da nga maa jagleel nag bànneex ak neex neexi neexitu xol lu ma yëg ci xol loo xam ne neexit wi gàcceel na lem lem waaw وجه لي مولد خير مرسلي حلاوة تخجل طعم العسل وأحنك تبين بيت إلي يقط مخجلا للعسل من خير رب خير باقي مرسلي دمنا صاحبناكو جو وير قام مسخ دم لا أمل أق جو خمني من مكو مطل لما لا تج لما لا كن لما فصل سي ماي لما فصل آه، سبيس بي nga xamne moy bisu gamo bi du tax ma matal muks ak lak alayya ya rabi'u haqqu dunaka ma anta bihi nga xam ne loolu boo ko doon topp ci fànn googu rek lu yaatoo yaatu la mu ñëw nag ci li nga xam ne noonu la ko doon noonu la ko doon dundale dundal gi wax nañ ko ne weer wépp la ko daan def waaye Sëriñ Tuubaa ci mbindum boppam daf ñoo xamal ne ko teel a gàmmoo la naka jekk danaan gàmmoo ba mu xàmmee eh, ci zahir ba niñ ko noppee gis waaye gàmmo ci woote ko ak dajale nit aw nit di leen delloo ci yàlla ñuy tudd yàlla di jàng alquran di jàng xasida anam googu moom nee teel na koo def lool bi fi way juróom bu góor jógee rek daanaka ba ci déwén sa rek mu jógee Mbàkke Kajoor ñëw Mbàkke Bawal wax nañ ne foofa daanaka fa la njëkk a defee gàmm goo xam ne gàmm gu gu fër Sëñ Abdou Khadre daana ko nettali ba Sëñ Moussa Abdou Khadre dana ko faral nettali waan Sëñ ko nettali di wax di yéem gàmm ga na na mbooloo ma bare woon ak nag yaag yëpp dégg nga da ko daan waxtaane loolu ci mbindam moo ko wax mu wax ne axyaytu mawlida nabi min asashi wan qaada li fawqa almuna fi hamsashi dundal naa gàmmo kañ laa ko tàmbalee dundal ci atum asas asas daanaka mën nga xam ne moo yoon wi ñoo maase rek bi bi bi bi yoonu murit wala boog woote bi bi mu tàmbalee ci at mooma daanaka rek ndax ñi ñii dañuy wax sas ñi di wax asas mooy 1301 nga xam daanaka du sori ay 1882 yooyu 83 82 wanqaada lii wan qaada naa fii munaafi hamsasi waaye nag nee na li ma bëgg dëgg dëgg nag ci gàmmu ak li ma ci doon mébét nag maa ngi ko am nag ci mujj gi bi bi bi bi eh, maanaam nekkee njaareem nag muy hamsas hamsas boo mooy cent 1345 nga xam daanaka 46 rek daanaka lu toll ci at wala at bu manqué la fi la fi amaat daal la ñibbi si Tuubaa waxaat na ko ci xaside yi nga xam ne da ko daan da ko daan jagleel weeru gàmmu nga xam ne saa bu lu bokkul ak dajale gi maanaam dajale taalibe yi ak jullit ñi di di di ko fésal di di di di jàng ñu jàng alxuraan xasiida di def ay bernde waaye da koy génneel ay xasiida yoo xam ne ne loolu maa ngi ko tàmbali ci asas ji ma tàmbalee gàmmoo rek ci laa tàmbali gàmm gu jot ma génne ay xasiida yoo xam ne gàmm laa koy jagleel mallaktu mawlidan nabi min asashi kitaabati waqaadani min jaysashi wala boog min jamsashi min min jamsashi maanaam moomal naa jox naa gàmmo gàmmo daal amal naa ko moomal naa ko li ko dalee ci asas mooy kon 1301 mooy at ma mu ñu waxoon léegi waaye nee na waqaada nii min jam sa si suñu borom mi moom mat nag jox ma xéewal yi ma doon yaakaar ci gàmmo ci atum 1343 kon gis nga 43 kon ginnaaw bi toogaan na fi daanaka ay maanaam ñetti at yooyu lu teg tuuti soo a ñibbi si daan soññ nit ñi nag ak taalibe yi rawatina kilifa yi diine yi ci ñu fonk gàmmo dem na sax ba wax ne gàmmo kilifa yi yi nga xam ne ñoo ne ci kanamu mbooloo yi dundal gàmmu da leen a war ñoom da leen war boo jàngee jësbul xulub andi na ci loolu bi muy tàmbali di wax ci gàmmu ak màggaayam ak ni ñu ko war a defee ak ak soññe bi la njëkk a xam le mooy gàmmu dafa màgg gan ak jamono sallallahu alayhi dafa màgg dafa am barke dafa am war moo tax màggal ko ak dundal ko dafa war ñëpp la war waaye nee na ñi ñi mu gën a war mooy ñi nga xam ne ñoo jiite mbooloo yi mawliduhu muazzamu mubarakun muhtaramu taadimuhu yanxatimu ala zawi taqaddumi daal daal daal nag tàmbali nag di xamle nag nu ñu koy defee nag te moom noonu la man nii mu ko jàngalee ci gis bu noonu la ko doon defee mooy taadimuhu bi sunnati mooy màggal ko ci anam gu dëpp ak sunna Cheikh Saliou Mbacke daana wax ne taadimuhu bi sunnati tekkiwul ne màgg maanaam gàmm sunna la déedéet waaye neen sëñ bi daa bëgg wax ne kuy gàmmoo te defee ko ci anam gi dëppook sunna anam gi dëppook sunna mooy lan mooy goo xam ne bidaa du ci am am po du ci am caaxaan du ci am ak mooy kon kenn waxaaliwu ko lu ñuy def tudd yàlla jàng alxuraan jàng xasida def ay bernde nettali siiratu Moustapha sallallahu alayhi wa sallam mooy ay jaar-jaar loolu si loolu defe naa Cheikh Sidaaj Malick ma ca ca Tiwaawoon waxoon na lu mel noonu ala azimu layla alwiladati xisbatan ida lam yakun naxwal xaraami oduulu nee na na ngeen màggal leen gàmm su fekkee lu araam du ca rax gàmm leen ba mu neex leen bu leen kenn teeg tee gàmm waaye li féeg nag lu xaraam du ca rax loolu la Cheikhul Xadim wax fi taazimuhu bis sunnati magal dal gamu manam dundal gamu ci sunna dal ku koy def lam lay ñëk a jural mooy bu ëllëgé da lay yóbbu aljana yaquduna lil jannati te du yam ci yóbbu aljana àjjana waaye bi hisdiyaadul minnati nee xéewaluk adina gi ci lay doliko koo di yokk li muxlisin mu'azzimi ñeel kep ko xamne yaangi selal tay magal gis nga kon dafa am sart moy ki koy def ki yam ki gamu nako def ngir yàlla te nako yek ci xolam na na ànd ak yene ak Pastef dal tambu di nak di wax nag ngëneeli gam ki gam li meuna a ci gam meññet bi fa man yu'azzim mawlida nabiyyina babil huda fala yuhasabu gada fahtariman wa'azzim nek de Sëñ Tuubaa mo ñu xamal ne kuy gam te def ko ci anam gi depp ak sunna bu ëllëgé kenn du la hisab moo tax mu ne kon warmaalal guddi gam te magalal guddi gam nee na yemul foofu de kep ko xamne yaangi gam di magal gan ak jamono ak sallallahu alayhi wasallam bokku na ci maqaama yi lay jox moy da nga melni ku shahid ku fekki xare badar xex shahid te loolu maqama mu réerée mo xamne ken mën ta xam nu tollu ëllëg yawmal xiyam shahid badar manam shahid badar so shuhadaawu badar ku ne xamne seen maqama ni tollu te neena faman yu'addi mawlida baraya ahmada fa ka shahidin shahida badran bi xayri wahmi te ne lim wax dama leer bi xayri waham du defle du fok du yaakaar luma leer la lo xamne dama ci am du ay firnde daal di wax ne képp koo xam ne yaa ngi jël sa alal di ko dépensé ci bisu gàmm ci guddi gàmm te boolewoo ci ak yàq donte ab dërëm la nee na yaa ngi mel ne koo xam ne dangaa fekke bisu xunaynin ba fekke bisu badar ba jàppale sallallahu alayhi wa sallam seetal li rek fa innahu fa kullu man anfaqa fi mawlidihi al almusharrafi malan bi ghayri sarafi walaw bi qadri dirhami fa innahu kaman hadar yawma hunain wa sabar wa yawma badrin wa nasar khayral wara mufahimi wala khayral waral mufahimi yëpp mën naa nekk mu am alif ak laam wala mu am yaa yàgg ci mujj ga mooy kon ne képp ku koy def kuy gàmmo daal di dépense alal ci gàmmo yow moom da yaa ngi mel ne ku fekke Hunayn yaa ngi mel ba ba mana bayit yi ya di jeex de dem na sax bay wax ne koo xam ne su gàmmo jotee sax nga jël alquran jàng ngir barkeelu wala nga jël xasida jàng ngir barkeelu wala nga jël buman don, ko ngir barkeelu wala beneen ngir jublu ci tabarrukan neena da nga gis sag doliku ni mi yokke sey mbir ni mi yokke ak ni ngay jëme kanam ci admi ba faw wa in ala ma in quri mawlidu khairil bashari lolou moy ki nga xamne dafa dafa jàng ba nopi tufli ko ci am dox fa shurbu bil mutahari yakuffu kaydal murghami neena su boba na ndox ma nga ma nga ma nga jël la nga doon jàng alquran ja wala xasida ji tufli ko ca soo ko day leral sa xol di dox sa digënté ak shaytané day day day day day dox sa diggante seytaane daal wax ne wa man ala cheyin qara mawlida sayidil bara tabarrukan fa sa yara nu mu wóoxoo bil fadrami mooy dama jëkkoon wax nga xam ne da ngaa jël alxuraan jàng barkeelu doonte benn isib la wala benn xasida comme gis bu gis bu sëñ Abdou Aziz Dabakh dégg naa daana wax ne sa maanaam sàllaaw gis bu dee doy na gàmm gis <laughs> bu rek doy na gàmm waaw nga jël gis bu jàng ko rek waxuma la nga boole ci maa bu ma xadimaat nag daal di da ngir ngir barkeelu tabarrukan ngir rek ne da nga gis ni nga xam ne noonu ngay yokkee تي زاهر أكبات دال جيخل بيري دال إحياء مولد البشير يحمي العيال والديور فيه شفاء للصدور لكل هذا ينتمي يعني مانم دوندل غامورال سين شيخ خديم نين دوندل غامو تي انام جي دوبوك سونا داي ار نجابوت كي ار كري ديكو دوندل تي نينا سافرا نغي تي تي جانغوراي خولي ندخ سا بون غامو با نوبي الله عليه وسلم ندخ موم شيخ خديم فو ني فاتلي نيم كو دان boo seetloo jamono yi at yi boo demee ci jumaay Touba ji wala nga dem fépp foo xam ne ëttub euh, Touba la tubaa daalul Muxti tubaa Daaru su mën a doon ba njaareem da ngay gis ni sëñ tubaa daan gàmmoo njaareem noonu la ñuy gàmmoo te mooy dañuy jiital jàng alxuraan ju bare bare bare bare buñ noppee daal di waxtaane lëf ci lan mooy gàmmu ak lan mooy solos gàmmu ak lan mooy njëriñal gàmmu buñ noppee daal di def ay kuréel yoo xam ne na suñ bi daan defee ci njaareem nga xam ne nga xam ne maanaam sëñ Massamba daana ko jiite ñu def ñetti kuréel yoo xam ne eh, ñii dañuy jàng jës bu ñii di jàng muwaahibu ñii di jàng mu muqaddimaat bépp kuréel bu ci nekk di jàng fukki bayit ak ñaar buñ jàngee fukki bayit ak ñaar ci xasida yooyu ñu wax noonu daal di taxaw barzan jiw bi nga xam ne mooy nett li jaar-jaar yi sallallahu alayhi wasallam ba mu feeñagul jamono ak bi feeñee ak bi ko yàlla yónnee ak xeex yéeg yëpp mu di ko nett ñu daal di kooku daal di jël benn bunt daal di koy nettali waxtaane ko ñu daal di koy ñu daal di julli ci Moustapha sallallahu alayhi wa àndandoo ko bu noppee ñu daal di delluwaat ci xaside yi daal di faat fukki bayit ak ñaar ba xaside yi jeex barzen ji bi jeex Cheikh Khadim noonu ko daan noonu la ko daan defee njaareem nga ne ku ñu wax sëñ am satuloo wax nañu moo daan jiiti barzen ji bi euh, euh, ak ak sax lu bare bare maanaa ci gàmmu gi euh, sëñ Masamba daan taxaw njàngum xaside bi daaray kaamil ji ñoom itam féetewoo njàngum alxuraan yi alxuraan bi nga xam ne lu mu néew néew moom ñaar fukk kaamil yi juróom-ñett faaw nañu ko jàng moom léeg ko su ko a kii nag kon noonu la Sëñ Xaadim daan jàngee noonu daan daan santaane di ko gàmmoo di ko jàngee xaside yi di ko jàngee alxuraan ji euh, xam naa kon loolu xay na man na mën na sa cee doylu euh, ci rek ni ni mu daan dundale gàmmu ak ni mu ci soññee ndax soññe bi mu soññee ci gàmmu ci gis bu war naa tax képp koo xam ne mbégum sëñ bi sa mbéga ni mu ko waxoon ca màggal su mu ñëwee li sëñ Saaliw waxoon loola bañ laa dal mooy bisu mu ñëw nga yamale ko bis ba ko jiitu ak bis ba ca topp sëñ ne loolu dara dara jaru ko ci àddina ndax ku ku ku baax ki kat Cheikh al Khadim suñu yaakaar nii la fonke woon gàmmu nii la ko daan màggale itam dem na sax nag ba suñ borom nak, jox ko ci gàmmu kon ndax ni mu ko daan dundalee ak ni mu ko daan fonke mu jox ko ci mbóot moo xam ne nee na mbóot moomu moom dafa war a nëbbutu wërta feeñ لmawlid l muxtaari sirrun yuktamu id sawnuhu an il wara yanxatimu ndax nee na ñoŋal mbóot moomu ba nga xam ne du feeñ ci maanaam ñëpp di ko xam nee na loolu moom daa war moom daa war moo tax yooye ma doon tudd ci ci ginnaaw mooy feeñal gi gàmmu di feeñal ak texeem ak yooyu yëpp daa war day dafa bokk ci yenn yi nga xam ne fonk gu mu fonkoon gàmmoo tax na suñu boroom defal ko ci loo xam ne ah nee na loolu moom nekkul lu may wax waaye lu may sant yàlla rek la kon noonu nga xam ne nag noonu la fonk woon gàmm noonu noonu la ci yare njabootam ba tey jii bi mu fi bi mu fi bi mu fi jógee ci saahir làq suñu bëtitam ëttu kër sëñ tubaa boo dem wala njaboot sëñ tubaa boo dem su gàmmu jotee noonu lañ koy dundalee tey jii waa daarul moxti di waa kër seex euh, sëñ maanaam maam Cerno Ibrahim ku ne xam na ne ñoom duñ xaar ba gàmmu ñëw sax par at ñuy gàmm ñoom semaine bu jot ñu gàmm te loolu ndigal li mi ngi bàyyi ko ci ku baax ki Cheikh Al altine maanaam guddik altine gu jot dañuy gàmm wutal lañ ko sax euh, fu ñu koy defeek yëpp euh, dégg nga maqaam ak ak maanaam bayteeg yëpp boo demee foofa ñoom chaque guddik altine gu nekk ñu jàng alquran tudd yàlla gu bari jàng jul salaa salaam julli yu bari jàng ay xasaayit yooyu moo waxoon rawatina jës bu ak mawaahibu ak muqaddimaat jàng barzan ji bi bu ko defee euh, dégg nga kilifa yi waar mbooloo mi digal leen dégg nga tere leen tey ji boo ñëwee ci jumaay Tuubaa ji itam daayira muqaddimatul xidma ànd ko dairatu de nga rawdu riyahin ci ndigal sëñ bu mag bi eh, kilifa gu bax gi non lañ koy taxawé fenen fo tam ci ak fenen non lañuy def kon loolu day wone rek solo si nga xam ne gàmmu am ko ci sëriñ bi xamna ko liñ koy jeexale nak moy nim ko daan nim ko daan gungé nak nga buy da koy téru and ak xol bu sedd ak eh, xar kanam gu belli waye nu mu bégee ci bu bu gàmmooy nuyo nu mel nonu lay lay amé nakar ak ak ak njàqare ak tiis su weeru gàmmoo yi tàggoo waaye du tee nag da koy yóbbuloo nag di ko di ko maanaam di ko yóbbante nag naa ko nag xam naa ne yaa ngi dem mënoo ñàkk dem yaa ngi tàggoo waaye boo demee nag na nga ma jotal sama nuyoo sallallahu alayhi wa sallam na nga ko wax ne ko ku koy liggéeyal te sopp ko te bëgg ko mi ngi fii di sax ci di ko liggéeyal moo tax abar rabion la daa wax abar rabion siwal idbaari bi niami min baadi iqbaalihi bil ardi wa naami weeru gàmmu daal moom daal ne na faaw day dem rek يبالي اي خيوالم رك تي اندي بيمي نيو مو اندالي خيوال يو ياتو يبري بري بري ابر ربيع سوى التوديع مرتحلا بما له من بشارات ومن كرم موم دالنا فاو داي ديم رك تي ديم غي بو ديم دو يبالي مبيغي اك خيوال يو اك مانام ترانجي مون نك توب كو بانك نك نينا نك ما واخكو نكو فقلت حين ابا غير المسير له سر يا ربيع وما فيك من سامي كناو نك مونو نياك ديم كون ديمال وايا بو ديمي نك اه ماغي لا يوبنتي آه، بو اغي صلى الله عليه وسلم وقرا له كلمي نانكو جوتال سوم نيو وقل له نانكو واخ دوك يا ربي يا ربي الخير ان له هنا خديما بما يرضي بما يرضيه تاخدا نكو امنا خديم رسول بوكاي ليغيال بو خاني مينكوي ميغي ساكو غرمم تي ليغي بيمكوي ليغيال له خديم يصلي بالسلام هنا عليه بالال والاصحاب بالقلم آه، امنا خديم بوكاي ليغيال في بو خاني ميغي جولي سي موم ديكو نيانال جام اك خيوال موم اك اي نيونم اك صحابام واي مينكوي ديفي سي خليمام daal di julli salaa salaam daal di jeexal alayhi xayru salaatin bi salaami bi laa xaddin wala gaayatin mamzujatan bi dami gis nga sopp gi salaa salaam gi ma waxoon ci tàmbali bi rek mooy feeñaat ci ci ci woy yi day wane ne bëgg gi mu bëgg gàmmoog weeru gàmmoog bisu gàmmo beeg yëpp du caa gën a jëmmi gàmmoo tax wala weer wee tax waaye sallallahu alayhi wa sallam tax waaw ndax ne ndax mi ngi mi ngi naan ko cofeel gi nga xam ne moom laa am ci moom ak yóbbante bi bi bi ma lay yóbbante ci moom da dafa dafa jaxasoog sama deret dafa jaxasoog sama deret cofeel gi dafa jaxasoog sama deret kon soo àggee na nga ko jotal loolu nga xam ne moo di kii moo tax ngërëmal yàlla li gën a rëy wax na nee na bokk na ci li ma ko jox mooy fonk weeru gàmm ak fonk bisu gàmm jëmmi gàmm ci boppam sax daf maa gërëm gërëm loo xam ne àndatul akub sànj radiya anniya rabiul awali bi gayri suxtin inda dil arshil wali te fa ngërëm amee solo fa la ma gërëmee muy fa yàlla mi nga xam ne mooy borom aras kon lii daal ci tënk mooy ni sëñ bi daan teeroo weeru gàmmoo yi ni mu ko daan dundale ni mu ci daan soññee ak it su gàmmo daan dem itam daan daan daan tàggoo ni mu ko daan gungee ak ni ko daan eh, yóbbantee ci sallallahu alayhi wa sallam eh, loolu yaakaar naa ne sëñ Mor doy na ci eh, ab yóbbal incha allah ci gàmmu